madame Mbaye euh, moom mooy maîtresse sage-femme sami municipal liggéey bi maa ngi ci depuis 2007. ku dégg na muy waxee xam ne nit ku dal la tey te waxam bëriwul madame Mbaye nekk nit ku digg doom sol yëre yu weex tàll teg ci blouse sage bu rose toog ci biroom boole ci décoru sanitaire bu ñu ko laajee ani lan moo ko duggal ci métier bi mu dal di tontu ne. métier bi moom dama ci am amour am ci passion dafa fekk métier boo xam ne bëgg naa ko dëkk ba ma nekkee xale su ma nekkee école même bi ñu ma joxee évaluation laaj ban métier nga bëgg a def boo nekkee mag man li ma doon raconté mooy dama bëgg a nekk sage mu nekk liggéey bu bëri ay avantages na ko noonee mu ñuy xamal ni dinañu faral di jànkoonteel ay inconvénients. avantage yi ci am bari na parce que bànneex rek laa mën a wax ne moo ci nekk parce que ñun yàlla may nañu am nañu privilège boo xam ne yàlla may nañu ko ñu mën a di saytu nit ak euh, doomam di ko suivre balaa muy ëmb lor ba ba muy téye doomam. bànneex rek la daal si moment yoo xam ne dañ koy nekk ak suñu patiente rëkk-rëkk bi suñ par rapport ak suñu condition de travail lay nekk ci jumtukaay yu ñuy liggéeyee parfois mu manqué war nga mën a référer malade amoo ambulance wala amoo place diggante bu ratax mooy dox digganteem ak patient wam ñi complicité moo nekk suñu diggante parce que suñuy sœur lañ ñu ñu faral di wax ñun ñooy seeni ndey dikke donc dañuy partager ay moments yu bari ñuy waxtaan li ma gën a marqué mooy ci sama début carrière quand même ba ma nekkee Kébémer mus nañ fa am benn euh, soxna koo xam ne c'était la première fois mu ëmb la te dañuy faral bu ñu ëmbee loolu di am nit di wàcc xel yi di teey doo nekk su ko defee da ngay ñëw hôpital pour ñu mën a sampal ay biteel pour wàcc yi mën a dagg mais malade boobu à chaque fois ñu koy sampal biteel moom daal lu doon dalal xelam mooy ma nekk ci wetam loolu daal dafa naan soo nekkee sama wet rek du benn jafe benn jour mais j'étais obligée fanaan ak moom pour mu mën a dal vraiment loolu moom manqué ma trop. métier sage-femme doon liggéey bu yombul loolee tax muy ñaax ñu gën a ñoŋal seen condition de travail. suñu condition de travail bu ñu ko mënoon vraiment gën a suñu bëreetu liggéeykaay bi ñu xoolaat matériel bi par rapport aussi euh, ci sécurité bi pour ñu assurer ñu sécurité parce que wax dëgg yàlla soxla nañu kuy liggéey nga am sécurité soxla nañ ko trop. tey ci bés bi la àdduna wërngal këpp jagleel bëccëgu sage yi madame yi teg si gën leen taxawu ci taxawaay bu mat